yamatul rek ci bésu màggal gu 18 safar mais safar su teeroo rek murid yëpp fu nu man nekk danoo def safar kon sëñ Tuubaa lu mu bëggoon am na ko mooy ñu santale ko yàlla feeñ na bu baax si nim ko bëggee ak feeñ na bu baax si taxawaayam màggal gi ku ñëw dund ka ku ñëwoon daaw ñëw ren tey nga ñëw tey dund màggal gi daa xam ni màggal gi at mu nekk day gën jëm kanam sëriñ bi bërki démb wane na boppam si Masalik tey màggal gi aussi wane na si boppam kon wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa yàlla fay na ko mun Muntaxa moom la yàlla defal moom mooy nit ku baax koo xam ni dafa bëgg lu baax am yërmande si jaam yi ba yàlla defal ko mu man leen boole toog ñu toog joxante loxo nee naa dafa rafet si Sénégal président bi fi jóge ak président bi toog man di gisee di waxtaan ci mbiru Sénégal man nee intérêt Sénégal moo nu ñaar loolu intérêt Sénégal la nan ko rafetlu la nekk si suuf nag kooku xamun ko wax dëgg yàlla duñ si duñ si teg baat waaye daal li ma gëm mooy waroon na am bu yàgg yàlla amale ko si mbaaxu sëñ Muntaxa ndax loolu ñëpp dañ ko war rafetlu. wax naa ko barki demb ni que man ay man ay retrouvailles dama si sawar ay nit sunoo ànd. ba yàlla def réeroo réeroo bi bëri na tey ci famille libérale bi kon ñëpp war nañu mën toog daje waxtaan ba jëmale kanam famille libérale bi jërëjëf salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahin ma al wa safar